ñi ngi jële ci téréb sëriñ Suhaybu Mbàkke boobu ñuy wax xulatul xayni mu wax ni guddik fukkeel ga ak benn ci ramadan ku ca julli ñeenti rakkan bu ci nekk fatiha ak inna anzalnahu fi laylatil xadr ak xul ya ayyuhal kaafiruun ak xul huwallaahu ahad lu ci ne juróom-ñaar yoon bu salmalee mu wax la xawla wala quwwata illa billaahil aliyyil aziim juróom-ñaar fukki yoon julli ci yonante bi alayhi salaatu wasalaam juróom-ñaar fukki yoon des na ko jéggal bàkkaar yu njëkk ak yu mujj ta talaayo ju ci ne des na ko ci bindal tuyaabay jaamu yàlla am at te dana mel ne ku goreel junniy jaam saraxe junniy diinaar regal junniy ñu xiif wodd wodd junniy ñu rafle te lépp lu nekk ci kaw suuf dana ko jéggalul yàlla subhaanahu wa moo xam lu wow la wala lu tooy te dees na ko te te dees na ko musal ci balaa yi ak fitna yi akub xiif akub ràgg ak sàddam jigéen jinne ak sàddam ji jinne te dees na ko musal ci mettitu dee dana tàbbi àjjana te deesu ko xisaab kon mi ngi noonu ñun ñëpp ñu ànd àndandoo ko defandoo ko lépp luñ ci julli rek suñ borom subhanahu wa taala nanguñu ko ci kàttanu borom Tuubaa Xaadim Rasuul